bu ñu añee duñu ñu reer bu ñu reeree duñu ñu ndékki ñoom ñu nekk ci biir réew mi di jënd ay kër ay milliards di jënd ay oto ay centaine de million yor ko ba pare bëgg jàmm am ci réew mi ak ci àdduna bi àdduna bi ñuy dund kat na xam ne dina metti lool